ak rafage yu coono jeex na bis ni ki tey bismillaahi fii niin ak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 sëriñ Basiiru jàkkaarloog jumaa ji lépp la ngeen itteewoo si wàllub kaam yi ak mbooleem it jumtukaay yi ngir seen diine yemb na fii bismillaahi fii niin ak daala yàllaaw a aousubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmaanirahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina moulana mouhamadil amin wa ala alihi wa man tabiahum bil ihsaani ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nu di leen ziare di leen baalu xaq di leen baal xaq tey jiital ci nuyoo bi ak ziar bi saaxibul fadila wal wasila sëriñ Muntaqa Basiru Mbàkke di ko ñaan yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram waaye noonu lañ koy ñaanalee mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi ñu góor ñi ñu jigéen ñi ñu mag ñi ñu ndaw ñi Euh, di am mbégte ak kontaan si dellu si waat tey fii ci seen euh, émission bi nga xamante ne moom lañ leen taxawal fii ci Rafah TV euh, ñu dubbee ko baatu askan wi tey nag ñu daral jëmm joo xamante ne boo ko ne jàkk rek xam ne yëngoom ak ak dalam lépp ci liggéeyal Serigne Touba rek la jëm ba tax ñu sos benn da daaira boo xamante ne association la tamit ngir liggéeyal Cheikh Mouhamadul Fadal ñu dalal tey ki nga xamante ne sët la ci Cheikh Mouhamadul Fadal ndax suñu waxee. way juróom di sëriñ Abdoul Fattah Mbacké sëriñ Abdoul Fattah Cheikh Mouhamadou Fadal tey ñu dalal Baye Galas Fattah di kenn ci njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal gi waaye di eh, kenn ci njabootu sëriñ Abdoul Fattah moom lañu fas yéene waxtaanal tey jëmee ci li nga xamante ne moom mooy daaira bi nga xamante ne mooy soppee Cheikh Mouhamadou Fadal yi eh, am bis bu mag bu ñuy wàcc ñu fas yéene waxtaan ak moom ci loolu waaye tamit des na waxtaan ak moom ci actualité yi ni demee eh, kon sang bi dama lay jox kaddu gi nga nuyoo bu pare ñu doog a dugg ci laaj ak tontu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan fii ci seen seen Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Serigne Touba Cheikh Mamadou taxa di ñaanal suñu borom di ko ñaanal suñu borom yokk fanam ba naa lii mu naa mu naa lii mu naaral maamam ju mbaax ja Cheikhul Khadim suñ suñu borom dimbali ko ba mu yeggale ko di ci teg Cheikh Abdou Baraka mi nga xam ne moo fi toog jotaay Cheikh Mamadou ak Cheikh Abdoul Fatah Fadilu mi nga xam ne mooy suñu buntu Serigne Touba. te naa di la di la di la bu baax baax rek di kontaan lool ak am mbégte ci dalal bi. jërëjëf euh, Baye Galas Fata euh, moom lañ dalal tey ñu fas yéene waxtaan ak moom Baye Galas euh, ñu daal di dugg ci li ñu war a waxtaanee muy association bi nga xamante ne moom ngeen yore association boobu naka la tudd ak nu mu sosoo. waaw association bi wala sax daayira bi soppee Cheikh Mamadou Fadal ñu ngi ko créé woon ci benn groupe WhatsApp. yaakaar naa bi ñu ko créé dix personnes ñoo ci nekkoon ñu ngi ko créé 2017 bi ñu demee ba am vingt personnes ci la ñëw ci Cheikh Abdoul Fatah mi nga xam ne mooy suñu buntu yëgal ko ko biñ ko ko yëgalee yaakaar naa biñ ko bi ñu koy sos sax digganteem ak Kasaro Diop yaakaar naa deux mois moo ci desoon biñ ko waxee biñ ko ko waxee mu ni nañ naa leen jox turu soppee Cheikh Mamadou Fadal mhm. bi mu joxee tur wi ñu ne ah, kon jox nañu tur daal. faaw ñu faaw ñu jéem a def ci Kazu Rajab def ci dara ñoo waajal ci deux mois yooyu rek Sëñ Fallu jàppale ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba def journée bi. ñu def journée bi. waaw ñu def journée bi. mu nekk première édition. mu def mu nekk première édition bi maanaam bi ko sosee daal digganteem ak Kazu Rajab deux mois la waaye deux mois yooyu ñu jaayante ak Serigne Touba ni dañ ni dañ ci def journée bi ñu defee journée bi Serigne Touba dogal mu mu jàll ci jàmm ba ba am nañ ko bëggee yaa li ma la wax daal mooy 2017 lañ ko sos ren jii mooy. quatrième édition bi incha allahu rabbi ngeen sos ko 2017 ca jamono yooyu ban activité ngeen ci njëkk def jamono yooyu. mooy li la wax activité bi njëkk def mooy journée journée bi ci njëkk def. ngeen njëkk def def. journée boobu do ay don la woon wala consultation gratuite wala lu mu doonoon. journée bi da joxe nañ ay don maam joxe nañ ceeb ay ceeb ak ceeb ba lañ joxoon def def def def consultation gratuite bi. yaakaar naa ñaari rek mooy première édition bi ñaari rek ñaari rek lañ ci bi ngeen sàkkoo ndigal ci Serigne Abdoul Fattah mu jox leen ci ndigal ndax ba ngeen daal di doon nag ràbbaloo whatsapp ba ca ngeen des wala da ngeen a xool beneen naka ngeen demee ba ba yan jéego ngeen daal cee toftal. waaw biñ whatsapp moom ba tey ba tey sax ñu ngi ci waaye dafa am yeneen méthode yu ñu doon utiliser ngir nit ñi mën ñëw si. dañ ko daan faral di jàllale ci Facebook bi ne nga xam ne ku ci gis ko ci gis liggéey bi nga xam ne liggéey bi intéressé na la nga nga nga woo téléphone ñu dugal la ci groupe bi noonu lañ doon def di def di def noonu di def noonu ba am ba am ba ay membres yu bari bari yoo xam ni am nañ soo ñoo xam sax mosuñu leen gis mosuñu leen teg bët ñoo xam dañuy yónnee seen seen seen addi rek ci Orange Money euh, ñu dem lañ def daal ba am ay ay ay ay nit fu ne ay ay Dakar Kaolack Louga Ndar ba Tambacounda sax yàgg naa ba Mbour am nañ fa ay nit yoo xam ni ci daayira bi lañ bokk di di participer bu baax a baax a baax ci journée bi waaw noonu la lañ def. ñu leen ngeen def euh, commencé di ko def ay bi ngeen ubbee groupe whatsapp bi daal ci def page Facebook hmm. ndax kañ ngeen njëkk def seen première rencontre bi nga xamante ne moom ngeen njëkk seen première daje kañ la. waaw première daje mooy biñ biñ biñ sosee daayira bi ba Kazu Rajab des yaakaar naa ba journée bi des une semaine ci lañ def benn benn benn benn rassemblement bu mag boo xam ni ñu bokkoon ci daayira bi yëpp vingt nañ ñu ñu dajoon ndindi yaakaar naa. biñ dajaloo wax li ñuy wax tënk li ñuy tënk ñun ñëpp ñu sosoo boobu nag yaakaar naa xéwlu gi sax taxu toogoon a bari waaye dañoo dañoo sosoon jaayante ñu ñëpp ku nekk joxe dara ñu ñu jaayante ko suñ suñ suñ borom dimbali ñu ba ñu matal waaw. léegi booba ndax am association bi association ngeen ko jëlee woon au début wala daaira ngeen ku jëlee o au début. waaw loolu loolu sax maam da da da liggéey suñu tubaab mm-hmm. biñ koy créé. Mm-hmm. wallahi yàlla xam na ne jubluñ jublu joon dara maam comme dañ dañoo créé ngir ay xeetu groupe noonu rek <laughs> waaye suñu borom dimbali ñu ba ñu am ay ay yu baax génn ba ñu bañ ba ñu def association maam dajaloo ni war nañoo am lu ñu war a def ndax maa ngi fàttaliku Ndeye Fata mi nga xam ne mooy présidente maa ngi koy nuyu moom moo jékki-jékki envoyé message ni ma lii daal yaakaar naa buñ ci buñ ci créé woon dara di ko def ci di ko waajale màggal ki yaakaar dina solo ma ne ko ah, alhamdulilah comme comme liggéeyal Sëriñ Fallu daal moom luñ ciy def nañ ci gaaw noonu lañ def daal ba ba ba ba commencé ko waaw. léegi bi ngeen ko sosee mu nekk association ndax am norme yi association di laaj def ngeen ko muy wut ay kayit ak fexe ba am reconnaissance yu ñu demee. waaw am nañu ay kayit am nañu ay kayit yu wóor yoo xam ni ah, buñ buñ jugoon ngir ngir ngir ngir am ay financement yëpp dañ koy am waaye eh, ñun dañuy jiital suñu bopp maam dañuy limbal da ca fekk loxol borom du caagi ne dañuy dañuy yaakaar nit ñi rek ci kayit yu ñu am. waaye dañuy jug di liggéeyal suñu bopp maam di ñaq di di def di def ci mbir mi ba kuñ ci fekk fekkuñ ci loolu daal la ñuy def moom moo tax maam euh, kayit kayit ak maam bu ñu amee kayit it ci kayit yi waaw yaakaaruñ ko ci kayit yi dañ ko yaakaar ci ci ci ci ci ndimbali suñu borom mi nga xam ni def defal nañu ko te ñu am ko ngir dimbali si doomu aadama yi loolu la lañ lañ lañ lañ ko doxee. ngeen yaakaar bi ngeen commencé collecte ba tey ñaata ndax ci tënk jàpp nga ñaata membre actuellement moo ci nekk. yaakaar naa daal su juumut Eh, war naa jege war naa jege cent war naa jege cent personnes naa war na ko jege waxuma mën na ko waaye war na ko jege war na ko jege ndax dama damaa xamut exact lim ni ngeen liggéey da ngeen wala da def jaayante ba léegi wala da am sasoo leen joxe. waaw dafa am ay station yu joxe maanaam dañ naan chaque mois da eh, chaque mois képp ku bokk ci képp koo xam ne am carte membre ci ci ci biir mbir mi ndax dañuy defar ay carte membre yoo xam ni 3000 francs lañ lañ koy jaayee 5000 francs bokk astaghfirullah léegi 5000 francs boobu boo jëndee carte membre ba pare Euh, bu ñu demee ba chaque mois dañuy dañuy def deux mille francs deux mille francs bépp membre bu nekk bu bokk ci bi am na ñoo xam ne sax duñ duñ joxe chaque mois waaye dañuy def dañuy def global bi vingt vingt deux mille la ñuy joxe nga xam ni chaque mois bi du lañ fekk bu ñu demee ba bis bi jub si tamit dinañ ay jaayante yoo xam dañ naan képp koo ko mën mille francs ba cinquante mille képp koo ko mën nga def koo ko mënu tamit wàcc na la. waaw noonu la la ñuy la ñuy doxalee mbir mi waaw. association bi ndaxam yéen a ngi déedéet politique moom jéggiwul leen. déedéet déedéet politique moom jéggiwuñ ko <laughs> jéggiwuñ ko waaw. amoon politicien bu leen seet si tey pour bëgg a ànd ak yéen liggéey. loolu moom du ma du ma la sax Moussa mooy am am naa yoon yoon nag waaye maam li ñu def nii dafa méngoot ak loolu. dafa méngoot ak loolu parce que kuy jàppale ay ku jàpp kuy jàppale ay nit euh, di di di di ci sàkku ngërëmal suñu borom yaakaar naa boo dugalee politicien yi ñu ko yàq parce que boobaa di nga di nga wut lool def sa poche te boobaa tamit euh, la la taxoon ngay woote. da nga koy da nga koy mujj da nga koy mujj ñàkk loolu daal lañ ci bañ moo tax. Hmm. xam am na ñeneen yu jógee bitim réew wala yu jógee ci biti Touba nga xamante ne dañ koy jëlee ci biti di ko andi eh, di leen dooleel. waaw bari ci nag bari ci mbokk yoo xam ni dañuy dégg mbir mi doon sax waaye dañ koy dégg yoo xam ni dañuy yónnee seen i garab yu baree bari wax dëgg yàlla yaakaar naa ñett ñett ñett ñett yoon yu ñu ko def yëpp garab yi dañ ko fay garab yi moom moom defee consultation gratuite day day des day des yooyu yëpp nag ndimbalu suñu borom la ak jàpp ne li ñu nekk ni Sëriñ Tuubaa nangu na ko Sëriñ Tuubaa nangu waaw mu mel ne kon may fàttali mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel seen euh, site internet bii TV ngeen di ànd ak seen mbokkum taalibe Moustapha Dieng du mën a sëriñ ndax ndax xam ngeen ne tey jile ñu ngi fii ci kër sëriñ Abdoul Fatah Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal ñu dalal doomam di sëriñ Baye Galas Fatah ñu fas yéene waxtaane jëm ci li nga xamante ne moom mooy seen association euh, seen association boobu noonu nga xamante ne moom lañu moom la ñu yore te en plus tamit ne ñu ngi koy waaj a def tey nag ñu fas yéene ànd ak ñoom waxtaan ci sosu gi ak mbir mi ni muy doxee léegi mbir mi ni muy doxee moom mooy ku ci bëgg a bokk actuellement euh, ban numéro nga yaakaar bu ci jaaree dana bokk. ku ci bëgg a bokk da ngay woo da ngay woo président Ndeye Fata si 940 77 944 44 34. waaw am am na tamit am na tamit euh, secrétaire waaye dama numéro bi laa jàpp daa nekk sama téléphone moo tax. dama ko jàpput waaye président bi daal xam naa ne ku ku ku ku jokkoo moom xam naa ne di nga ci am loo bu soobee yàlla. am léegi bi ngeen pare pour sos ko ba pare ndax dem ngeen ci yeneen kilifa yi ci dëkk bi su weesoo seen way juru sell wi le dem ci yeneen kilifa yi gaaral leen ko wala ba tey ni ngeen a toog rek ci roq bi. waaw euh, am na am na ñuy dem nag waaye waaye bëriwul bëriwul lool lool ndax biñ commencé dem ci ay kilifa sax yaakaar naa ci bii euh, édition bi jàll rek la ci lañ dem ci Cheikh Mamadou Mourtala moom Serigne Fallou ak ak ñenn ci kilifa yi te it ñu ngi waaj benn siyaar boo xam ni Cheikh Mamadou Mountakha lañ jëm bu soobee yàlla yonent bi balaa balaa journée ba incha allahu rek bu mbooloo mépp dajee dinañ dem ci moom siyaar ko yëg gaaral ko suñu liggéey ndax bëgguñoo na dem ca ba mu dox tuuti rek ñu xam ne mbir mi tegu na ci yoonu yoonu wér ñu doog a dem ci sëñ bi ok ndax bëgguñoon jekki-jekki rek dem ci première édition bi def ko ñaari yoon suñ borom suñu borom dogal dogal dogal dara léegi nag moo tax ñu euh, dem dem ba am ba bëgg a def quatrième bi doo doo ko dem ci bi mu xam ne ñoo xam ne mbir mi mu xam ne mbir mi mbir mi amal amal nañu daal ñu ci dox am activité consultation gratuite rek ngeen jël wala dafa am consultation gratuite ak ay don ak ay ay don wala yeneen ak yeneen yoon yu ay don de wala yeneen activité lay doon. waaw li wax ni sax danañ ji lañ ko jokk muy don de sang ren ji lañ ko ci bëgg a yokk incha allah rabbi waaye amoon nañ yeneen tamit yu ñu def joxe ceeb ay yére yoo xam ni dañ koy jox dañ koy jox mag ñi ak gone yi ay yére yoo xam dañ leen ko jox kuñ kuñ kuñ jox ci xéwal ga pare jox la ay yére yoo sol yooyu yëpp dañ ko ci boole te it am nañ am na am nañ lu ñu bëgg yokkaat loo xam ni euh, mbir ma consultation gratuite bi même gara bi fa mu dañ koy jël jox la dañuy jël xaalis bi jox la nga dematu ko nga nga di wuti fu mu am loolu daal lañ fas yéene doxale ci bu ci bu ci seen kees fi mu toll nii war naa dund nga yaakaar ne <laughs> kaar kaar bala maa wax dara rek ñaata nga yaakaar moo ci war a nekk. ah wax dëgg <laughs> ndax man ndax dama ko jiguwut <laughs> ah, alhamdulilah yàlla yàlla yàlla ko mat yàlla na ko mat yàlla na ko mat yàlla na ko <laughs> ñaare bu ñu waxee liggéey mel nii lu jëm ci wàllu association dina am ay activités yeneen yu ñuy yu ñuy doxal yoo xamante ne activité culturelle ak yu ñu demee ndax am ci xalaat yéen itam dem ngeen ba xalaat ne ci Touba war ngeen a taxawal leneen loo xamante ne activité culturelle la. waaw li li ñu xalaatoon nag mooy du du mënu maa wax sax ni euh, activité culturelle waaye am na loo xam ne bëgg nañ ko def muy dañ ñëw dañ ñoon bu ñëwee ba journée bi jàll ñu ubbi ñu ubbi benn benn benn saaru saaru kii saaru usine boo xam ni day liggéey ci wàllum ndox nga xam ni loolu lépp social lay doon rek nga xam ne da ngay jël nit ñi ñi nga xam ne amuñ liggéey nga leen fa yóbbu ñuy ñuy daan seen ndax loolu tamit yaakaar naa ci social lay bokk yaakaar naa génn ko loolu daal lañ fa lañ ci bëggoon a yokk moo moo li nga xam ne moo mooy génn mooy génn daayira bi li nga xam ne mooy génn daayira bi ñëw ñëw ci biir société bi yaakaar naa loolu daal lañ ci lañ lañ bëggoon a la lañ amoon xalaat ngir def ko incha allahu rabbi bu sunne bi jàllee jàmm barke borom Tuuba ku wax kilifa diine yi wax kilifa aada yi ci biir Touba ak li ko wër lu ne maire ak yooyu euh, ndax dem ngeen ci maire gaara ko ko wala dem ngeen ci kilifa aada yi fi nekk wax ñoom ci yooyu. waaw maire moom demoon nañ fa yaakaar naa at yi yëpp dañ fay dem bu njëkk ba dem nañ fa yónn yónn woon na ndawam wax dëgg yàlla waaye ñett yi ci topp yëpp ndax dem nañ ci dem nañ ci <laughs> ñaareel bi mu wax ñaay waxam ñetteel bi it muy bii jàll dem nañ fa ba mu ba mu ba mu ubbiloo ñu yu ne rek yu ne wax dëgg yàlla bañ demee ba ca ba ba ca bañ ne suba la woo nañ ko ba sonn jotuñu ko woo nañ tamit kam nu boole loon ba sonn jotuñu ko moo tax nag ñu ni bii jàll moom xam lool loolu deuxième bi la sax waaye bii jàll amul kenn ku amul kenn ku mën a wax ni maam ci nit adduna yi amul kenn ku mën a wax ni dugal na ci dugal na ci daayira bi dara. loolu lépp maam deux millions yañ ci dugal yëpp ñun ñoo ko jaayante ñun waa daayira bi du def ko ci waaye amul kenn ku dugal xaalisam waaw amul kenn ku dugal xaalisam. da ah, xëy na ñoom seen i ah, calendrier ñaare day chargé chargé goo xamante ni euh, dañ ko di bëgg waaye duñ ko di bañ sax ndax xëy na euh, doomu aadama ak fàtte yu mel noonu ngeen jonjaar rek xawal ba xam ba naka lay demee bi yoon ndax euh, seen dimbal da ci am solo. waaw duñ bàyyi duñ bàyyi parce que ñoom lu ñu yor ñun ñoo ko moom ndax ñun dañ koy jël ngir joxal ko ngir joxal ko nit ñi te askan wi ñoom day dañoo am fee maam mairie bi ci boppam ñoom dañu fa am wàll ndax dina am dina am dina dina am caisse sociale foofu am na fa kon yaakaar na caisse sociale boobu di ko ko jox ñoo gën a woyof loxo ñu ngi ko joxe loolu tamit dara nekku ci waaw incha allah duñ ko bàyyi soob yàlla yonent bi incha allah ñoo ko déggandoo eh, yi nga xamante ni ñu ngi ko weccoo ak Serigne Baye Galas Fata eh, ibnu Cheikh Mahamadul ibnu Serigne Abdoul Fata Mbacke li nga xamante ne moom mooy seen association bi nga xamante ne eh, sos nañ ko muy daaira bi nga xamante mooy soppee Cheikh Mahamadul Fadal yi te ñuy waajal bis bi nga xamante ne moom mooy waajal bisub social boo xamante ne ñu ngi koy amale fii ci tu fii ci wala ca Ndindi Touba Ndindi ka Serigne Fallou Ndindi waaw foofu lañ ko def waaw. <laughs> foofee ci Ndindi naka lañ bi bi ngeen paree daaw ak daaw jéeg ak daawaati jéeg bi ngeen paree réaction yi ngeen jot après. waaw a dëgg yàlla de ah ñun am nañ am nañ ci lu ñuy neex lool ndax yaakaar na bi jàll ni jox nañ 500 personnes yoo xam ne ñoo leen jox nañ leen lii ma wax nii muy ceeb beeg yére yeeg yooyu yëpp jox nañ leen ko. consul consultation bi tamit def nañ ko ba ci ngoon ji waaye médecin yi ñu jëloon dañoo teeloon ñibbi ci ngoon gi waaye ren ji incha allahu rabbi fa yéene nañoo médecin toog ba timis ba ba mbir mi ba mbir mi jeex incha allah rabbi te it wax dëgg yàlla ñoom yaakaar naa ne am nañ ci mbég ndax li tax ma xam ne ma xam ne am nañ ci mbég mooy damaa xool chaque année rek mbir mi day gën a yokk ndax ndax kayit yaa nga fee kayit liñ joxoon li ñu joxoon daaw ñëpp dama ko fàtte indaale waaye mi ngi ci mi ngi ci bi waaye ñu joxoon euh, ci première édition ba ba ci ba ci quatrième bi maam nombre bi yëpp mi ngi ci kayit yi ta sutante na moo tax ma xam ne ñoom ñoom sant nañ bu baax a baax a baax. macha allah loolu daf ci am solo daayira bi tamit euh, ndaxam yéen ñi nga xamante ni yéen a askan ci maam maaram rek la concerné wala keneen ku mu neex rek bëgg cee bokk mën na ci dikk rek adhéré wu ci. man mën naa la wax sax ni la ba bëriwul bëriwul bëriwul bëriwul ay mbàkk-mbàkk ndax yaakaar naa bu weesoo man mii présidente bi Ndeye Fata ak sama benn rak Baye Jili ak suñu ndam ak sama benn mag yaakaar naa ñu ci des ñëpp waaw santuñ mbàkk daayira bi daal pour pour maam ñëpp la kuy jullit ak kuy jullit ndax social ci boppam suñ borom moo ko digle mhm. suñ fal danaa wax naan damay liggéeyal yàlla dee leen liggéeyal yàlla ci jaam yàlla yi ñun nag ci loolu lañ ci loolu lañ ne mhm. moo tax xeebuñ kenn ndax suñ Abdullah wax naan jumaay ji lépp lu fi lépp lu fi dem xaw ma fu mu fu mu jógee waaye xam naa fi jëm mhm. ñun nag ci loolu lañ ci loolu lañ ne maam lépp lépp lu fi ñëw daal ñun dañuy xam fi mu jëm waaye nag fa muy jóge lijjanti wuñ ko wax dëgg yàlla moo tax daal moo tax ñu ci woo ñëpp képp képp koo xam ne suñu borom la bind ñoo ngi la ci woo. ndax bind ngeen ay lettres sociales yoo xam ne dangeen koy yut kilifa yi nga xamante ne dangeen koy demande lettre de soutien lay doon boo xam ne danga koy jox kilifa gi ngir mu jàpp ci yu ñu demee. waaw waaw ay lettres nag bind nañ ay lettres yu xaw yu xaw yu a takku sax waaye euh, yóbbooguñ ci yu bari nag yóbbooguñ ci yu bari ndax dañoo bëgg bàyyi ba ba mu ni kët ni jonn rek ñu doog ñu doog a dox dox yu bari ndax annonce bu yàgg bi maam bu demee ba bu fekkee diir bi daa daa ëpp un rek ñi ñi mën nañ ko fàtte moo tax ñu bëgg bàyyi ba mu des ay ay quelques jours rek ay 15 jours yooyu ñu doog ñu doog a commencé démarche baax a baax a baax incha allah. am ngeen lii di ay partenaires yu leen di jàppale yoo euh, ñoom sax bokkuñ lañ euh, jàppale ndax ceeb bi ñuy jënd ci ñoom <laughs> déedéet <laughs> waaye nag bu ñu sañoon daal ñoom ñoom ñi nga xam ne ñu ñun xam nañ li ñuy jënd ndax am na lim boo xam nit bu ko jëndee faaw war nga koo foo ko jëmee nañuy laaj fu ñu mbir mi su ko ñu ñuy jëm wàññi ceeb bu baax a baax ndax xaw na seer <laughs> day xaw a seer. ki jënd benn benn benn benn quantité bi ki ko jënd ci yow war nga cee mën a mën a wàññi fellal ko xewal ko ah, ba mu ne sax lu ca mën a jëm nga nga nga joxe ko. léegi ñu dugg ci cas social bi di manière général ci biir Touba naka nga jàngate ñàkk gi. ndax boo duggee fu mel ne saam buqaatul mubaarak koto yooyu da ngay dem ba da ngay da ngay laal ne est-ce que ñi ci Touba lañ bokk sa ñàkk gi nekk biir Touba lan nga ko jàngateew. ah wax yàlla man maam mbir mu nekk rek da nga koy natt sa bopp ñu yéenuñ kenn ñàkk waaye suñu borom moo bind noonu ñi ñàkk it bu fekkoon ni ñi nga xam ne ñi nga xam ne am nañ ñi ngi dimbale ñu ñàkk exemple Touba ci kanam ñi ngi def lu ñu mën ngir ngir ngir loolu lépp u jóge fi wala mu wàññee ko fi. am naa yaakaar ni suñ suñu borom dina leen dimbali ndax mbiri Serigne Touba moo demee noonu te faw nit nit bu nit bu jógee ci dëkk ñëw ñëw ci dëkk faw balam fa xam kenn dina tumuranke loolu mënut a ñàkk ak ko man doon ñoo ngi ñaan daal lépp lépp loo xam ni Touba ji kanam ñu ngi koy mébét ci ñooñu ak ñun ñii suñu borom defal ñu ko lu kawe suñu jot barke sama barke sama ndax am na ci yaakaar lool nag ndax ndax suñ Tuubaa moom waay waayam waayam waayam sax wuta jàmbat waaw wuta jàmbat ah, waaye léeg nga gis ne tamit euh, buñ duggee ci wàllum ñàkk gi mooy par exemple li ma jubloo wax mooy nit ñi ah, dimbalante ñàkk dimbalante gu fees gi naam ñenn ñi ngi koy def waaye tamit est-ce nga yaakaar ne wërta yokk daa war yokk ndax ndax ndax fi ne nii ñi dañoo toll foo xam ne réseaux sociaux yi moo yàq mbir mi ndax ku lay dimbali ku ne bëgg na nga nga nga nga dugal ko statut mbaa nga mbaa nga mbaa caméra ko mu xam ne yow mii dimbal na la loolu nag mu yàq mbir mi dafa ni li fekk ñooy xaar loolu ci ñoom kenn du leen dimbali ndax ndax dafa am deret maam deret dafa am solo ci doomu aadama deret deret dafa am solo ci doomu aadama dafa am ñoo xam ne li fekk yaa ngi xaar ay caméra ci ñoom adduna du maam adduna du yàq ba nga dimbal leen léegi nag nit ñi li ñu war a xool mooy seen diggante suñu borom xam ne suñu borom moo ñu fàcc ñun ñëpp moo jox kii mu am jox kee mu ñàkk bu fekkoon nag ñi nga xam ne am nañ ñu ngi dimbali ñi ñàkk suñu borom waxuma la sax waxuma la suñu borom dina ñëw lu bari waaye mën na bañ ñëw ndax boobaa ñëpp a yam boobaa ñëpp yam ndax ndax nit nit yor na loo xam mën na ci dund ba faatu ta lam day mel ni dund ci kooku nag bu fekkoon mi ngi dimbali ki nga xam ne bu reeree tey du suba lépp mën naa mën naa yoon lépp mën naa yoon te tey bu waa réew mi ci réew mi ci jàmm rek la nekk réew mu jàmm rek lay nekk. macha allah léegi ba tey ci beneen ponk bu concerné Touba ci insécurité bi ndax xëy na biir dëkk bi di Touba sax gars yi ñu ngi def ay rafaan ak ñu demee ci wàllum euh, li jëm ci wàllum ramasse beeg yooyu ngir euh, assurer sécurité bi naka nga jàngatee insécurité bi am ci dëkk bi nga xamante ne rey nit geek yooyu yëpp daal nga xamante ne takar naase na. ah loolu daa doy waar moom fi ne lool loolu fi ne di ci wàllum ñàkk gi sax ndax en général ñu koy def ñëpp dañuy wut ngir lu ñu kon ñooñ dañoo ñàkk bu doon na nit ñi yooyu yëpp day wàññeeku fi ne ñàkk moo waral lépp fi ne ñàkk loo gis ci àdduna ñàkk ko mooy rey nit ñeeg dajji maa ngi see jàmbur yeeg yooyu yëpp ñàkk ko waral maa ngi rafetlu bu baax liggéey liggéey bi nga xam ne ngi koy def fan yii muy ramas yëpp ndax buñu jàpp ne dañ leen ramas ngir lekk seen xaalis waaye dañ leen ramas ngir ngir garder seen sécurité waaw ngir ngir segg ngir segg nit ñi ndax fi ne Touba gii lu fi dawut am lañ fa gis lañ fi daan lañ fa gis fan yii muy rey ay nit man lool man loolu daawu ko dégg sax nag daaw ma ko dégg waaye boo demee bu koy dégg fii ci Touba wala da koy gis nga xam ne jugoor jugoor na jugoor na jugoor na kon lu ñu def rek ramage 22 sama d'accord na waaw ramage 22 sax d'accord na wér yaakaar naa lu nit mënut a lijjanti ci ab jant bu jant xasee soo moom mënut ko liggéey surveiller ñu jant mënoo jant bu faatu mm. waaw kon kon loolu ñu bàyyi ci xel ne ñiy liggéey tamit eh, di jaay lu mel yekkee yooyu yooyu tamit yooyu tamit xam nga darul ya day daal am mm. waaye ñu segg daal segg bi nga xamante ne moom mën naa liggéenti sécurité dëkk bi ba nga xam ne que yi ñu daan dégg ca bitim réew mm. dem ba koy dégg mu noppi fee amati mm. ñu del siwaat ci ba tey ci wàllum dëkk bi di Touba naka nga fi jàngate wàllum sante wàllum faju mi eh, ak wàllum li jëm ci wàllum lii di wàllum eh, dund bi dund bi daa mel yi tamit eh, d'une manière sax Sénégal mën nañ ne dund bi temps yi ni mu yokkoo yooyu ngeen an ko jàngate en tant que koo xamante ne day dund day dund social. waaw bu dee wàllum faju moom loolu mu dafay manqué dafay manqué baax ndax journée bee ñu def da gis ñoo xam ni dañ naan li lekk gi sax yittelu ma man dañ naan faju gi maam faju gi amu wér moom moo ma gën ci lekk dafa am ñoo xam ni luñ dafa am ñoo xam dañoo wérut te it waaye nag am na ñoo xam dañoo wérut ba pare duñ dem ci médecin faaw ñu xaar ay gratuite comme ni ñuy def nii ñu doog cee dem te loolu warut maam doomu aadama bu ne war na chaque mois wala chaque deux mois mu dem xool yaramam lu ci ne boo loolu bu ñu ko defee yooyu yooyu yëpp doom am problème te maa ngi fàttaliku fan yii maa ngi doon déglu benn benn benn benn benn waay mu ni euh, dañoo négliger négliger benn négligence ci ci hôpital yi nga xam ne moo am benn benn benn rakkam bu bu dammoon ci tànk xaw xuma am na am na demee daal xuma seexam la xuma daal ñu koy négliger midi asafala minuit ba 11h ci suba minuit ba 11h ci suba nga xam ne kenn lalu ko. Ah, xam nga tamit man amoon naa sama jarbaar bu damm woon fan yi mais euh, ci matière faju hmm. ñaare bu nit dammoo bu dikkee dañuy takk tànk bi wala loxo bi hmm. ba néew bi rees yu mel noonu est-ce que du yi gis jàppale dañuy négliger parce que tey bu fekkee nit ki dafa damm mënoo dikk rek daar daar bi tabax ko faaw nga takk ko léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy takk tànk bi mu jëm suuf nga xamante ne day dem ba si digg tàlli ba tàlli ci xeetu liggéey mais fekkee nag ci xeetu négligence boo xamante ne ci wàllu manque de moyen la hmm. loolu moom moom duñ ko rafetlu moom waaw loolu man fi ni loolu li nga wax ni sax mu loolu moom ni mu nettalee yaakaar naa du nii ndax nee na fu dem dañ ne kii duñ ko laal ah, lan wax mm-hmm. ba ba kii may wax nii dafa mujj far ndax nee na oto militaire moo ko fël ñaari tànk yëpp wala yaasu billah yéen mënu ko mais ñaari tànk yëpp damm ba deret ja sonal ko maam deret ji di tuur di tuur ba sonal ko mm-hmm. nee na fu hôpital bu mu dem ñu ne ko ñu ne ko ñu ne kii duñ ko laal mm-hmm. ba ba yaayam sax nee na yaayam day sant daa mujj sukk ci suuf di ñaan docteur docteur bi lànk kenn lalu ko ban noonu ci leen ci la waa mu mujjee faatu loolu dafa war a jeex ci dafa war a jeex ci réew mi. est-ce que du delluwaat ci rek ci ci ci dëkk bu ñàkk ci réew mu ñàkk rek Sénégal ba tey daal seen seen pauvreté moom moo. loolu lépp fi ne fi ne yooyu yëpp ci xeet la rek ak ñàkk dimbalante rek ndax nit nit boo ko xoolee ni sa bopp rek wallaahi lancim da nga koy dimbali boo xoolee ni sa bopp rek da nga koy ndax adduna bi ci boppam dafay maam li jàll fan yi jàll deesu ko amaat ci kanam daa jeex ba pare. moo tax lépp lu ci waay di def na ci sóoraale suñu borom te bañ cee sóoraale fay ak doomu aadama ndax fay fay ak doomu aadama li fekk yaa ngi doo def lu ne doo def lu lu baax doo def lu baax ndax fi ne kooku euh, ñàkk jël malade boobu fay ak doomu aadama la ci la ci xool ndax laaj na ko boo xam amu ko waaye bu ci xooloon fay fay suñu borom mën naa ba kanam ba pare mën na ci fay yàlla loolu daal la ñu war a xoolaat nañ nañuy def ngir yàlla di dimbalante ngir yàlla te xam ne yàlla fi ne yi des yëpp dañ koy bàyyi fee dugg ci bax mi waaw yooyu amul solo. faaw wu ñu waxtaanee tamit ci beneen tonk bi muy lu jëm ci wàllum ginnaaw ba ay citoyen sénégalais lañ dund bi ni seere dund bi seer na lool euh, léegi borom kër yëpp fi mu doon nii daanaka ku ci ree say ree du àgg ndax ndax ndax xëy na sa conscience dootu mën a tranquille ci wàllum dund bi seeraayu dund bi tamit naka nga yaakaar ne noonu la waroon mën demee. ah xanaa ñu jëm ñu ko wàññil rek te te yërëm ñu te xam ne ñii ñu ñu wax dëgg yàlla ñu leen dénk suñu réew. te bañ leen koy dénkit yaakaarowu ñu dañu yokk dañu yokk mbir mi buñ demee nag am mbir bu mbir naan nit bu la dénkee dara dem bay rëccu war ngaa xoolaat sa bopp te xam ni yow mii liñ la dénkoon yaa ngi ko commencé yàq nañ ñu dimbali ñu a baax a ah, a ngir ñu a a am luñ dunde ngir ñu mën a am am luñ dimbalee doomu aadama yi hmm. loolu day yóbbaale sax muy facture courant yi yokk yëpp yokkuwaay gi yëpp yëpp nañ ci nañ ci dimbali rek te xam ne wax dëgg yàlla euh, nu ñu mën a defee ba ba mu wàññi ko rek moo gën ndax ndax ki nga xamante ne ab ab moor ab la buy dëggu ci dëkk bi di di tàllal ci jant bi di mar kooku bu fekkee da ngaa bëgg yokk courant am da nga koy indi problème wala nga yokk ceeb bi yu mel noonu da koy indi problème ci dund te njaboot gi ñun famille Sénégal famille élastique la ñuy dund yore ci kër gi sa bàjjan yore ci sa nijaay yore sa ñëpp ci kër gi ñëpp teg benn loxo leen di yore loolu tamit day xaw a metti léegi ñu dellusiwaat ci li nga xamante ne moom mooy seen programme bi ngeen a amal euh, kan ngeen jàpp bis bi bis bi yaakaar naa kii la doon la 14 mars su ma jumut moom lay doon incha allahu rabbi fële ci Touba ñun bis bi 7 lay commencé ci 7 heures suba ba 7 heures ci ngoon 19 heures incha allahu rabbi. docteur yi ngeen di liggéeyee li ngeen di liggéeyal yi euh, ndax am yéen seen démarche ak ñoom nan la demee ak ban relation moo leen boole yéen ñoom. waaw docteur yi nag xam naa ni euh, ndax ci biir ci biir mbir mi dafa ay docteur yi ci ne waa dafa am ñu ñu fi nekk yoo xam ne Dakar lañuy ñuy liggéeyee mooy Serigne Makhtar Kébé moom taalibe sëñ bi la ak Serigne euh, kii Touré lay fàttuwaay suñ mos suñ euh, maxtaar kebe ak bi ci des daal ma fàtt tur wi waaye ñoom ñaar lañ ci liggéeyal ñoom ñaar daal wax dëgg yàlla jàmbaar lañ ci mbir mi lool ndax dinañ indi dinañ indi ay ay ay docteur ñoom it docteur Dieng mii ci hôpital Ndamatou tamit moom dinañ jàpp ci mbir mu baax ndax dinañ jox ay garab dinañu yabalal ay médecins yoo xam dinañu dinañu jàppale ci bu baax a baax moom jàmbaar la ci loolu ndeysaan jàmbaar ci liggéey bi am na solo ñoo ko déggandoo muy Serigne Baye Gallas Fata moom lañ dalal tey ngir fas yéene waxtaan ak moom ci seen bis bi nga xamante ne ñu ngi koy wàcc jëmee ci li nga xamante ne moom mooy journée sociale bi ñuy def ah, foofee ci Touba Ndindi ngir fas yéene def li nga xamante ne moom mooy dimbali néew yu doole yi ah, ci lépp loo xamante ne rek luñ mën la ak luñ mënul sax des na ko jéemi ba indi ay nit yoo xamante ne sax bitim réew lañ jóge muy mel ne Dakar bi muy Dakar ngir mën a dikk jàpp ci liggéey bi réalisateur mi may euh, def signe ne ay minutes ndaw moo ma desee léegi soo amoon loo buggoon a wax lu jëm ci liggéey bi te laajuma la ko wala mu am kàddu yu woote yoo bëggoon a def te laajuma la ko yan lay doon. mbir mi daal képp kuy jàppale yàlla képp kuy jàppale doomu aadama di ci sàkku yàlla ñu ngi la ci woo ñu xam ni du loo xam ne dañ koy wut ngir def suñu pos contraire la def muy génn suñu pos di def si mbir mi ndax. dañoo li li doonoon li nga xam ne mooy suñu suñu suñu bakku mooy liggéeyal yàlla ci jam yàlla nu ni ko Cheikh Moune Fadal waxee ñun ci loolu lañ ne ci loolu lañ fas yéene day it ndax bañ koy bañ koy gaaral mbokk teel bi yëpp ci loolu loolu lañ leen wax du caagin dañ ci dañ ci dërëm dërëm buñ ci waay jox moom même bu dee dërëm sax dinañ ko def incha allahu rabbi di ci woo di ci mbokk yëpp nag képp koo xam ne daal teel bi suñ tuwaa nga wala ngay am wala ngay ab jullit wala sax bokkoo ci yoon wi ñoo la ci woo te di la xamal ni lii moom liggéeyal suñu borom la maam amul kenn ku ñu xàjjee daal moom xaj amul xàjj ak seen moom ñëpp la ñu woo ñëpp ñëpp lañ ci woo waaw ñëpp lañ ci woo. macha allah kon ñoo ko dégg muy euh, woote bu mujj bi nga xamante ne def nañ ko ñoom ñi nga xamante ne ñooy waa daaira bii di soppe Cheikh Mamadou Fadal yaakaar naa moom jëmm la joo xamante ne ñëpp am ñëppay ay soppeem àdduna bépp soppe Cheikh Mamadou rek ñu ngi la ci woo ngir nga jàpp ci ngir jëm yàlla Cheikh Mamadou Fadal jërëjëf mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel seen site internet bi di Rafah TV euh, seen émission baatu askan wi kon loolu woon tey fii ci kër Serigne Abdoul Fatah Mbacké euh, moom Cheikh Mouhamadou Fadal nga xamante ne moom mooy doomam di Baye Galas Fatah moom lañ dalal tey ngir euh, jëm ci seen wàllum association bi nga xamante ne mooy soppee Cheikh yi li nga xamante ne moom mooy journée sociale boobu nga xamante ne ñu ngi koy def ca Touba Ndindi ci ndigalul kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo boot seen kanam ñëpp ñoom ñëpp rek ñoo fas yéene àndandoo ngir fas yéene doxal li nga xamante ne moom mooy liggéey ko ci waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafar wala tafarraqu waaye tamit teg ci taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal xisni wal xudwaan ba tax na ñoom ñu fas yéene a ngir liggéeyal Serigne ci journée sociale boobu nga xamante ne koy defee ca Touba Ndindi kon képp ku dëkk ci côté boobu ñu la ciy woo bépp bonne volonté boo xamante ne nga cee participer saw ñàq tamit ñu la ciy woo ndax liggéey la boo xamante ne bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fépp fu waaye nekk Mouhamadou Fadal di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye di jiital nag sama techniciens yi nga xamante ni ñoom laa àndal ku ci mel seexu naa kan di ko ziare bu baax a baax a baax euh, di ko bége waaye di bége bu baax a baax Serigne Talla euh, ñu di leen ñaanal jàmm ak di leen ñaanal yàlla Serigne yokk seen euh, xel ba nga xamee ne que lu ñu bëgg a liggéeyal Serigne Touba rek ci liggéey bi jaale ci machine yi yàlla daf koy yombalal ci barkeb Serigne Touba ah, di leen sant bu baax a baax tamit Mourtada Rafa ak ñëpp ñu nekk ca kër ga rek ñu ngi leen di leen gërëm di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wabarakatuhu. ak Rafaju coono jeex na bis ni ki tey bismillahi fii nii ak daara yàlla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 Serigne Bassirou jàkkaarloog jumaa ji lépp la ngeen itteewoo si wàllub kaam yi ak mbooleem it jumtukaay yi ngir seen diine yemb na fii bismillahi fii nii ak daara yàlla